consulté na ay juge wax ak ñaari mbër yi sifflé na daw nañu xeex nañu ñi ngi xeex ñi ngi xeex ñi ngi xeex Alboury ngi dóor ñi ngi xeex ñi ngi xeex dóor na ko ku yu dal mais sax nekk la daa am doole bàyyiwul téye na Alboury ko ku yu dal a dal mais sax bàyyiwul na ko sol ñi ngi téyante mu ngi koy añ mu bañ ñi ngi téyante sax ngi fayu Zal ak Alboury añ na ko ñu seddoo jël bi doole doxul jàmm delloo tuur na ko lan moo xew dafa mel ni Alboury daan na ko Alboury daan na ko wallaay Alboury daan na ko Alboury daan na ko ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem dafa mën a fecc ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem dafa dégg de ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem ma ngay dem Alboury ngay dem Alboury ngay dem cey jolof jolof bi waaw waaw loolu mooy wëngës wëngës si mais gis naa ki ko doon bëre mbër yu bëri bàyyi ko fi yow nga jël ko joxo ko benn cër dellu si waatal ci combat bi nee naa la uh-huh. man ku ma yëpp ku ne daf maa fekk may nelaw te saako pomiteer bi uh-huh. pomiteer laa si uh-huh. lamb dañ ma bàyyi xel du maag kii sax barki alxuraanu karim du maag moom yi kaw ne maa ngi jéegul nag maa dóor ci bët sa mbër bi mi ngi metti waaw mais est-ce que du suuf si suuf si la parce que néewiwul. néewiwul xonqul kon alhamdulilah ah mi ngi metti trop waaw.